gaañu gaañu Lamine Fata loolee la bés bi la jour xëy fësal ci xëtam bu njëkk ñeenti takk der faatu nañu ca Casamance Siri Romanik Tendeng Jéeri Diallo Arouna Sidibé ak Moussa Ndiaye ñoom ñooñee nag dañ doon jël congé waaye mujj yegg ndax seen woto bi moo jaar ci ab miin ñu daal di caa ñàkk seen bakkan beneen bi yëglekaay nag daal di si ci risque yi nga xam ne rek am na jamono ji ci mandat ak parrainage parlementaire bu taxaw Sénégal Barthélemy Dias nag ma ngay tiital Khalifa Ababacar Sall moom meerab Ndakaaru bi nag di xam ne ne moytuwulee nag du bokk ci ñuy parrainé lu jëm nag ci coowam ak Ndiaga Diouf moom Barthélémy Dias ci janoog taskatu xibaar yi ma ngay xam ne ne nag du bouger mètre ca bopp mairie ba Barthélémy Dias ci xal loolee nag la yéenekaay bi di l'enquête xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu ne coowam ak Ndiaga Diouf nag jamono ji boo moytuwulee dana ko jural mu ñàkk bopp mairie bu Ndakaaru waaye Barthélémy Dias ma ngay tontu ci biir yëglekaay bi ne nag du bàyyi tey du bàyyi ëllëg bopp mairie bu Ndakaaru mooy woy di ko jiite même bu fekkente ni dañu ko condamné nag mu ne yootaa du ci mairie bi loolee nag la xamle moom Barthélémy Dias ma ngay ñaawlu nag dossier bi nga xam ne saa bu ñuy jub élection rek faaw ñu génnee moo waral nag moom Barthélémy Dias ma ngay tuumaal état bu Sénégal ne lu jiin njaag rek moom mooy njaag ndax dafa bëgg roppat ay koppar ca mairie bu Ndakaaru ci yéenekaay bi di Les Échos moom Barthélémy Dias ma ngay fëgg dënnam ne du nag signé benn yoon ab chèque boo xamante ne nii dañu koy jagleel njabootug njaga Diouf ba noppi nag di ci yokk ne xam nañu lépp ndax candidature Khalifa Ababacar Sall rek la ñu visé ci jamono ji lu ñu bëgg rek sottee moom mooy Khalifa Ababacar Sall bañ a am ay parrainage parlementaire loolee la xamle ci biir yëglekaay bi Vox Populi nag di ko feelu ni Barthélémy Dias kay jamono ji nag ma ngay jëlaat ay jaajam nag ndax li mu jàpp rek mooy sabotage moom la état bu Sénégal bëgg a def jëm nag ci ressources yi nga xam ne mooy bàyyeeko ci biir mairie ville bu Ndakaaru moo waral nag ñu sulliwaat boobee dossier beneenub dossier boo xam ne nag jamono ji ubbi nañu ci ab information judiciaire bokk na ci maître Moussa Diop moom mi nga xam ne rek jamono ji yóbbu nañu ko ca ndungu siin ginnaaw rek ab mandat de dépôt boo xam ne rek démb la ko juge bu deuxième cabinet daal di amal juróom benn chef d'inculpation moom la ko parquet bi di toppee mu fekk l'observateur di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne Amadou Ba nag ci week-end bi la ñu koy investir ñoom waa parti socialiste yéenekaay bi nag di àddu ci ëllëgu PS ak AFP nag mu di ab laaj bu mu samp Le Quotidien moom daal di taxaw tey jii nag ci plan retour bi nga xam ne rek kii di Karim Wade bëgg na koo amal ngir wàccaayu élection présidentielle yi yër leen boobee yëglekaay la Soleil yëglekaay jant bi xamle ne nag lu jëm ci décoration bu palais édition 2023 bi nag jox nañu daal ay décoration ay doomu Sénégal yu xarañ loolu nag ci seen wàllu liggéey foofu foofee ci république bu palais lu nu mel nag li ci kilifa yu jublu rek bokk na ci gën a jëmmal wàllum culture mu di ab tradition boo xam ne rek kilifa yi dañ koy amal ngir xeex nag lépp lu jëm ci wàllum incivisme tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale rek stade yëglekaay moom di dellu siwaat nag ci date yu am solo yi nga xam ne rek ñoo ngi koy xaar ci gaynde yu Sénégal réew